صلاة الله ثم السلام فبرهام جد عاشق فيك واميق لله الذي آخى بين أرواح وأرواح وألف بينها قبل ظهور الأشباح yawma alastu bi rabbikum qaalu bala ajaabu bilbaa'i lati biha kaana ma kaan biha yakunu ma yakunu ila yawmi liqa والصلاة والسلام على سر ذاته سيدنا ومولانا محمد مركز الصفات ومجمع الأنوار wal alwaani wa zawaati wa ala alihi wa ashaabihi ansaarihi ila allah wa ala taabiina wa taabiihim bi ihsaanin ila yawmi liqaa wa radiya allahu an cheikhina wa mawlana abil abbas ahmad ibn mahamadin tijaani wa an xalifatihi qutbil irshadi wa gawsil ibad mawlana cheikh ibrahim ibn alhaaji abdillah assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh gannaaw sant yàlla ak julli ci yonent bu màgg bi maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp kenn ku nekk maa koy nuyu ci turam di ko nuyu ci jëmmi boppam fàttewuma fàttewuma kenn du ci xel du ci xol yéen ñëpp maa ngi leen di nuyu <coughs> maa ngi leen di ñaanal yàlla itam daje bii ñu daje fii nga xam ne yàlla rek moo tax ñu daj laje ko yal na ñu yàlla dimbale ñu dajeyaat ko ay at yu bari ci kanam te lépp yàlla ko yàlla nangu ko yàlla nangu ndax daje bi lum rëy rëy ak lu màgg màgg rek yàlla rekk moo tax ñu def ko bëggante ci yàlla moo tax ñu bëgg ñu ànd bëggante ci yàlla moo tax ñu jekkiyaale ci yàlla yàlla dafa wax ci alquran ne kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas yéen xeet yonent bi yéen a gën ci xeet wu ma mës tànn wu ma mës génne rek yéen ci gën ngir lan taamuruna bil maarufi wa tanhawna anil munkari wa tuminuna billah gannaaw loolu mu xamal ñu ne ci biir xeet yonent bi dem am na ay tànneef Cheikh Tidiane radiallahu anhu ay taalibeem ñoo ci gën ci biir taalibe yooyu itam mu xamal ñu ne ñi topp Mawlana saaxibil faydati tijaaniyatil kubra mu Mawlana Cheikh Ibrahim ñoo ci gën xamal nañu itam ne sëriñ yi yëpp Cheikh Tidiane moo taxaw ci seen kanam Baye Ñas radiyallahu anhu moo wax ne xayru shuyuuxi dahri bil itlaaqi imaamina tijaani dul axlaaqi xamal nañu itam ne ci biir taalibi tijaan yooyu ñi ci ànd ak Maulana Cheikh Ibrahim bi faydatu tijaaniyatul kubra feeñee ñoo ci gën ndax seen sëriñ moo gën sëriñ si kon ñoom itam ñoo gën taalibe yi ñun ñu toog fii nag tey ñu ngi sant yàlla yàlla boole nañu ci ñi nga xam ne ci taalibe yooyu lañ bokk ci taalibe Mawlana Cheikh Ibrahima Niass ci lañ bokk ndax man nga gis man ngaa gis koo xam ne tiijaan la muy weddi koo xam ne mbokki jullitam la mën ngaa gis koo xam ne itam tijaan la di weddiyanteeg beneen tijaan waaye nag képp koo xam ne bokk nga ci fayda bi doo weddi sa morom doo weddi koo xam ne itam tijaan dëgg-dëgg la moo tax ñu ngi sant yàlla bu baax a baax ci daje bi ñu toog fii yàlla boole ñu ci mbooloo moolaana saaxibil faydati tijaaniyatil kubra muy cheikh Ibrahim ibn El Hadj Abdillah at Tijaani yàlla nañu yàlla saxal ci loolu yàlla nañu yàlla dimbale nuñ jàppee rek yàlla nañ ko gën a jàpp nuñ fonkee rek yàlla nañ ko gën a fonk maa ngi ndokkeel ñépp nag maa ngi ndokkeel képp ku teew fii tey muy góor muy jigéen muy mag muy ndaw ñëpp maa ngi leen di ndokkeel maa ngi ñaan maa ngi ñaanal yàlla ñëpp ku nekk rek ku nekk rek yàlla na la yàlla fajal sa aajo comme na nga ko bëggee defal la ko comme na ko bëggee jox la ko ci lu dul benn coono comme ni ko bëggee ci barke moom ci barke Maulana Cheikh ci barke Maulana lu Wujudi sallallahu alayhi wa sallam yàlla mën naa maye yooyu yëpp yàlla nañu ko may ñun ñëpp fi seen barke ñoom ñoo ñu ma tudd kontaan nañ lool dafa mel ni. bor bu ñu ameewoon woon fay ko mel ni bor bu ñu amee woon waaye li jafe yépp yal na ko yàlla yombal ci ñun li manque yépp yal na ñu ko yàlla amalal li ñuy ut yépp itam yal na ñu ko yàlla jox moom ku mu jox nga am yal na ñu joxal boppam ci barke ñoo ñu ma ñu ngi kontaan ñu ngi sant ñu ngi gërëm Cheikh Baye Wilane wax moom ba mu ñëwee rek teg na tànkam fi nga xam ne fa la baayam tegoon tànkam te loolu yaakaar ju rëy la Mbàkke bu sa waxoon na bàyyi ne ko hakaza birrul abna bil abai fa yurjalahum naylul barakaat ne noonu la doom yi di baaxee way jur yi ñu di leen yaakaaral su ne barke bu ñu ut rek danañ ci jot Cheikh Baye ñu ngi lay yaakaaral barke boo yootu rek jarul ngay sonn barke bi dana daanu ci sa kaw da doo ci sonn ñu koy yaakaaral itam mboolem ñi ànd ak yow ngir yàlla ànd ak yow itam ngir Cheikh Abdou Barham yal yàlla fa jaajooy képp ku fi teew jafe-jafe yi yëpp yàlla xam na ko yàlla na ko jeexal nawet bi ñuy door yal na ko yàlla def muy nawet bu barke yal na ko yàlla def utuñ ci ndox mu bari de barke lañ ci ut loolu la bàyyi doon wax yal na ci yàlla génne barke yoo xam ne xamuñ ko woon jox ñu ko ci barke moom ci barke Cheikh Tidiane radiyallahu anhu ci barke yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim